Abdourahmane euh, Sy ah. maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Soxna Kumba. voilà Abdourahmane Sy nga nekk chargé de communication bu coordination des organisations des réfugiés mauritaniens au Sénégal fi ñu nii nag avril euh, ci mois d' avril bi ñu ngi fàttaliku événement yu avril 1989 yi amoon si diggante Sénégal ak euh, Mauritanie euh, mbir mi nag mi ngi li maanaam li indi crise bi nag mi ngi nekkoon ci Diawara foofule nekk ci Sénégal oriental gannaaw jàppante boo xam ne amoon na ci diggante ay berger peul mauritanien ak ay euh, ah, euh, mm. pêcheurs soninké sénégalais euh, ba armée mauritanienne intervenir am mm. ñaari sénégalais yuñ si daal di faat mm. mbir mi nag après daal di jur li mu jur ñëpp xam ko est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun un peu rek ci crise boobule jëf soxna Kumba crise avril mu ngi am moon pale mu ngi tàmbale woon ci pale si jaawara comme ni nga ko waxe eh, diggante béykat ak ay sàmmkat eh, donc ay pël eh, sàmmkat ay béykat soninke ñi nga xam ne ñoo jotee benn garde bu Mauritanie bi ñuy naan xërëy bi Ould Aïd Euh, moom euh, ñëwul woon pour euh, atte wala tempérer comme moom kenn moo nekkoon takk der foofu mais dafa ubbi safara bi si si xale yi nga xam ne ñooy soninke yi mu am ay ay nit ñi nga xam ne jot nañu ñàkk seen bakkan nu mot ñaari moor kenn kii mu ngi tudd Moussa Sakho kenn kii Fouseynou Sakho donc mu amoon encore ay blessé yi nga xam ne hmm, ñett lañu. Hmm. donc euh, pour vous dire rek yëf yi foofu la tàmbalee. Hmm. bi foofu mu tàmbalee nag euh, yëngu-yëngu yi dem ba dépassé li xam ne. foofu lañ yaakaaroon foofu la yem. Euh, ndax fitina bi ren si wàllu côté Mauritanie. Hmm. ñoom ak armée yi ak policiers yi ñoom dañ doon dimbali population yi pour ñu gaañ wala ñu rey ñi xam ne ñooy ressortissants sénégalais yi nekk foofu ak noir yi nga xam ne euh, ay mauritanien la ñu nekk foofu ci loolu la ñu basé woon pour euh, def euh, li nga xam ne kenn dootu ko fàtte parce que ñi fa dee dañoo bari lool lool lool am ñi nga xam ne kenn mënul xayma xayma bi moo tax ñu tuddee ko si si nasaraan génocide même bu dee Union africaine ak communauté internationale àndu si mm. mais côté Sénégal encore mu indi ay yëngu-yëngu ay naar yu bari ñu gaañ leen fii ñii dee donc cela veut ko que fitna bi nga xam ne mosul am ci histoire Sénégal ak Mauritanie. Mm-hmm. ndax ñaari eh, histoire yooyu xëy na am na ñi nga xam ne xamuñu mais eh, ñun ñi nga xam ne au moins eh, am nañ ci tuuti gëstu ak ak fekkee xam nañu ne que Mauritanie existé wul. Mhm. Euh, Mauritanie existé wul même population yi nekk fale côté bale fee yëpp c'est des populations du Sénégal mhm. du temps mhm. bi ñu demee ba def frontière bi nag la population yooyu mm, euh, des fale si euh, réew Mauritanie bu bees bi ñeneen ñi des Sénégal mais ba tey dañ doon jokkonte dañ doon demante dañ doon xormante ku nekk mbokkam moo nekk fii mbokk bu nekk fii rek am na fale beneen mbokk kon lii mu kenn musul woon xalaat ne lii dina am diggante Mauritanie ak Sénégal. Mm-hmm. waaw léegi yéen ngeen nekk victime ci événement tragique yooyu euh, mm-hmm. déjà bu ma nee victime lañ parce que dañ leen mm-hmm. déporté jële leen seen dëkk Mauritanie indi leen fii Sénégal ngeen nekk ay vraie victime euh, déjà naka la déportation bi demee atmosphère bi foofu Mauritanie ba ñu déporté leen indi leen Sénégal Euh, déportation bi euh, dañu xam ne comme ñeen ñu ngi ci terrain bi di rey euh, ñeneen ñi nga xam ne ay fonctionnaires nañ ñu ngi ci gouvernement bi di liggéey nañ leen wàññi wàññi bi mooy que. Mhm. il fallait que ñu profité ñu wàññi. nit ñu ñuul xamal nit ñi. Mhm. nit ñu ñuul ñi. voilà xamal xamal xamal ne comité international bi ko ñoom ñi ñu dépo ñi ñu déporté Sénégal yépp ay sénégalais lañu. ndax Maawiya toogoon na pendant dix huit ans su ko reconnaître bi mu amee ba dix huit ans bi bi mu ko reconnaître benn at moo ci tegu mu def ko coup d'état mu mu tam mu nekkaat réfugié mais solo bi mooy que métti woon na métti bi nga xam ne euh, da ngay nekk sa liggéey ñu ne la kër tim yóbbu la aéroport directement wala ñu fekk sa kër population yi rey la wala rey sa famille ak yooyu donc euh, nekkoon na li nga xam ne lu jéggi dayoo la Euh, kenn mus koo xalaat surtout encore si weer bu tedd bi nga xam ne mooy weeru Ramadan euh, weeru koor bi nga xam ne weeru yërmande la weeru jaamu yàlla la weeru fàttaliku sa borom la loolu bu weesoo euh, mun nañu xam ne rek ko métti woon na lool lool lool lool sax ndax tuum tuumaranke bi dafa gaawoon trop du kenn xamul fu mu jëm. d' accord léegi déjà euh, atmosphère bi kon nekkoon na atmosphère bu doy waar euh, léegi ñu ñu ñu jël leen indi leen euh, Sénégal bi nga ñëwee hmm. bi ngeen ñëwee Sénégal plutôt euh, ban situation ngeen fi fekk ban atmosphère ngeen fi fekk. Euh, bi ñuy egsee Sénégal aussi euh, situation bi njëkk am mooy que da tuumaranke léegi léegi yaa ngi woon fale yaa ngi nekk fii dans minutes donc dépaysement bi hmm, dafa dafa gaaw lool. ñu fekk fii encore ñu yóbbu ñu foire ñu fekk foofu encore ay naar yi nga xam ne ñoom la gouvernement Sénégal sauvé woon yóbbu leen euh, euh, camp Batrin fale ñu fekkante foofu mu nekkaat benn atmosphère bi nga xam ne euh, xawma ban ban ban terme laa la mën a utiliser hmm. mais lu jéggi dayoo la parce que c'était vraiment dafa dafa diisoon trop hmm. pour nga mën a utiliser sa sa sa mémoire sax hmm. pour comprendre Euh, pour nga mën a comprendre li nga xam ne moom moo xew sa sa donc mu nekkoon atmosphère bu doy waar daal. bu doy waar bu doy waar lool. bu doy waar la ce que mënoon nañu xam exactement ñaata noir mauritanien la ñu jëlee woon ci événement yooyu Mauritanie. indi leen fii Sénégal lim bi chiffre yi. waaw waaw lim bi mooy que euh, téeméeri euh, ak ñaar fukki junni doomi aadama lañu ñu déporté. ñooñu mooy mooy chiffre officiel bi am ñi nga xam ne. vingt mille yi moom fale lañ ko yóbbu euh, Mali Mm. ñoo gënoon jege frontière Mali bi ñeneen ñi ñu traverse leen par force euh, niveau frontière euh, diggante ñoom ak Sénégal. d'accord léegi mm. euh, depuis atum 1989 ngeen nekk fii Sénégal ya bu beaucoup de réfugiés mauritaniens macha allah mm. lan mooy seeni jafe-jafe jafe-jafe yi nga xamante ni yéen a koy am quotidiennement depuis 1989 ba léegi. jafe-jafe yi daal depuis 89 ba léegi. mun nañu comprendre que état du Sénégal ak fu mu toll. ak ñu mu am ci xereñ ci administration nationale et internationale ay réfugié toog fi ay daw lakk toog fii amuñu benn papier amuñu benn patrie amuñu benn travail. Mhm. donc dafa mel nu euh, li li seen euh, Adriano doon wax rek euh, ñun dafa mel ni ñoo nekkoon les palestiniens de l' Afrique de l'Ouest mhm. tellement que yëf yi dafa jéggi dayoo. Mhm. mun nañu comprendre. dund bi jafe mun nañu comprendre fi ñuy fanaan jafe mun nañu comprendre euh, liggéey jafe. waaw waaye mënuñu comprendre bu un document euh, kayit bi nga xam ne euh, dañu dañu war a sukkandiku ci législation Sénégal ci loi Sénégal bi nga xam ne wax na ci ay wax yu leer nañ. Mhm. ñu mënuñu toog ba heure bii nii mënuñu am carte d'identité mënuñu am passeport numérisé mënuñu voyager mënuñu dem fenn te ñoom mënuñu defal dara. Mhm. loolu mënul nekk loolu moom loolu moo ñu gën a frappé vraiment vraiment. Mm. te encore beneen bi mooy que. yëf yi amul amul faiblesse amul amul rus amul euh, xool leneen li ñu war a xool mooy xool euh, li nga xam ne loolu nga attan nga def ko li nga xam ne attanoo ko nga proposé communauté internationale nga proposé euh, nga proposé ko CEDEAO wala nga proposé ko Union africaine comme amoo amoo si ay xalaat amoo si ay pexe waaye tey fii plus de treize mille personnes Euh, fukki junni ak euh, ñett nit ñi nga xam ne kenn xamul lu ñu niroo loolu vraiment euh, c'est c'est méchant dañoo dañoo néeg dañoo néeg dañoo néeg parce que euh, euh, par rapport à population yi kii papier yi waaw moo tax ñu arrêté leen ñu raafle leen hmm. à cause de papier yi jigéen yi mënuñu liggéey xale yi mënuñu liggéey mënoo liggéey ci benn entreprise hmm. bien vrai que am ñi nga xam ne jàng nañ ba am yenn ijaas munoo am benn document valable bi nga xam ne au moins mën nga liggéey am nga chance nga jàng nga dem nga présenté wu ñu jël la comme liggéey nga dimbali sa njaboot nga dimbali sa famille loolu yëpp amul ma xam ne nag euh, vraiment dañoo néeg dañoo seetaan dañoo seetaan lu bare bare bare bare te euh, histoire nu muy retena lu euh, muy nu muy rëddee lii xew quatre-vingt-neuf noonu lay rëddee lii Sénégal yore réfugiés yi Mauritanie yi nekk fii ci Sénégal moom moom bu leen kenn nax bu leen kenn nax hmm. l'histoire va retenir tout d'accord euh, tey jii est-ce que Abdourahmane Sy euh, au commissariat des réfugiés mi ngi leen di toppatoo waaw wala déet est-ce que ñoom ñi ngi def seen rôle pour réfugiés mauritaniens au Sénégal waaw wala bon euh, waaw ak déet waaw bi hmm. mooy que am na li nga xam ne euh, dañ ko war a toppatoo puisque il y a des partenaires yi nga xam ne ñu ngi toppatoo réfugiés yi ñoom ñooy indi seen koppoor ñu ne dimbal ñii nga xam ne ñu ngi jàmm ñu ngi jàng dim koppoor yi dimbal leen ñii ñi nga xam ne amuñu fi ñu dëkk euh, di lool loolu côté boobu ñoom ñu ngi def mais ñoom seen wal wàll ñu benn effort pour mun a seet euh, jokkoo ak gouvernement yi jokko ak Genève jokkoo ak seen naataango bi nekk bi nga xam ne moo leen yilif mooy bi nga xam ne moo moo yilif euh, su région bi yëpp. affaire mm. sous régional pour ñu mun a seet ay pexe. trente ans cela veut dire que ñoom dañoo nelaw dañoo nelaw nelaw bi aussi euh, dara firnde di ko lu dul jàppale euh, courant politique état yi nga xam ne ñoo subsidé nii Abdou Diouf daal def na lépp lu mu waroon def mm-hmm. Ablaye Wade def na effort état bii nekk nii nii nii nii nii ne nii gisuñu dara lu ñu defal lu dul ay wax kese kese kese kese pour nga am carte d'identité rek problème la pour nga am titre de voyage problème la loolu vraiment dafa jéggi dayoo HCR deful rôle bu ubbi woon dossier réfugié Mauritanie amaana tey jeex nañ fii sax mais dañu nekk fii di ñu naj fii rek di ñu liggéeyloo HCR bureau Sénégal laa wax de li ma la wax ragaluma ci dara sama waat ci kaw. ñoom defuñu lu ñu war a def. loolu mooy dëgg bi. Euh, affigé au euh, euh, plutôt au commissariat des réfugiés au niveau international nag ñoom est-ce que li ñu war a def ñu ngi koy def wala. non li ñu war a def mooy que. Hmm. le bureau de représentation ici. moo war a fournir les informations. Mm-hmm. exactes, les informations fiables mm-hmm. par rapport à la réalité de ce que nous vivons ici ñooñu bu ñu foosee poo waaw ñoom dañuy bàyyi ba at bi jeex rek ñu xayma seen rapport à leur manière ñoo ne ko ci ne. jeex na euh, kon loolu ça ne résout pas le problème. Abdourahmane si maa ngi lay remercier bu baax a baax. Euh, jërëjëf Comba jërëjëf maa lay remercier. d'accord may fàttali ne Abdourahmane Sy yow yaa chargé de communication bu coordination des organisations des réfugiés mauritaniens au Sénégal ñu lay remercier bu baax a baax. ci disponibilité bi. Mm. Mm. merci beaucoup merci Comba jërëjëf jërëjëf yéen tam seen disponibilité. Merci. Au revoir. Merci.